أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi leen di nuyu yéen ñépp boole seen di leen ziyaara di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem suñu waxtaan tey jii mi ngi jëm ci tawfiyatu day ni atte fay bor leb leble ak fay bor ki nu jëkk ameel bor moo di yàlla tabaraka wa taala wa aqridu llaha qardan xasanan yàlla nee na na ngeen ko lebal lu rafet yàlla na ku ko lebal mu fay la wes la bu kenn toog naan yàlla du fayeeku bor soo amee boru julli sa digganteeg sa borom fayal sa boru julli soo amee boru koor su koor gi paasee na nga fay sa boru koor loolu sunu àq la sunu diggante ak sunu borom am na yu kenn du ci dugg yàlla bare na yërmande yërmandeem yaana du fayeeku sama boru julli gi bu ci kenn dugg kooku sunu diggante la ak sunu borom lebal yàlla it njabootu yàlla gi alxalqu kulluhum iyaalullahi doomu aadama yi ñoo di jabootu yàlla lebal leen yërmande ngir yàlla fay la yërmande lebal leen mbaax yàlla fay la mbaax lebal leen sutura yàlla suturaal la tabaarakallaahu beneen bor bi mooy sa diggante ak sa mbokk jurit ak beneen doomu aadama boo bokk na diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana ida xadara janazatan yasalu hël alayha daynun fa in qiila naam yamtaniu an alsalaati alayha xatta awfaahu ahluha anha moom sallallahu alayhi wa sallam su ma saan dem dëj ba ñu sang néew bi sang ko tëral ko pour jullee ko dafay laaj ndax am na bor su ñu nee am na ku mu ameel bor mu dem taxaw fële daal di beru bàyyi mbokk yi ñu réglé bor boobu ni àllaxira kenn du fu yóbbaale bor mbokk yi leçon boobule ñoo ngi ko dénk sur bopp di leen ko dénk kenn ku ci nekk soo la amee bor sa digganteeg sa mbokk doomu aadama su dee fay nga ko demal nga fay ko soo amulee loo fay demal ngeen waxtaan ci njëkk ak teraanga tabaarakallahu bu trouver solution moo gën dee bett la tabaarakallahu loolu indi fitna sa njaboot mu ni moom sallallahu alayhi wa sallam wa min al ixsaani fi dayni xusnu alqadaa wa dalika bi an yadhaba ila saaxibi alxaq ne bokk na ci teraanga fay bor fayin bu rafet teggil borom bor bi muy ñëw ci yow di la accès di la fayeeku loolu lu diis la ci gor ba ngay soxla da nga dem guddi mbaa suba teel poñe sa bopp poñe sa ngor ndax soxlaa la tey tabaarakallahu gisutoo dara lu dul aajo na aajo bi faju dem ni ko suturaal ma jàppale ma taxawu ma soos jàppul du baax mais kooku soo dee gor su mbir ya baaxee war nga delluwaat fa nga fekkoon ni ko jërëjëf lag ma aroon mi ngi nii léegi yeweeku naa wante déedéet da nga naan patt ak moom am ko doo ko fay mën ko fay lànk doo ko fay ba mu xëy suba moom jaaxle ñëw pañe si la na la fay ma sama bor loolu si ay nawle kenn ku nekk war na ko daw yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam xayrukum axsanukum qadaan nee na ki gën ci yéen moo di ci gën rafet ñi muy fay bor te mooy rek su la yàlla yëwanalee mbir mi sotti na jógal gaaw bala délai bee jot nga fekk na nga soxlaa woon nga dem fekki ko si njekk ak teraanga ak sutura ni que niñ ma ko joxewoon ci sutura ma delluwaat da sa yëf tabarakallahu ànd ak sant ngir ëllëg soo soxlawaatee mu mun la joxaat yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam man adaana daynan wa huwa yan yanwi qadaan wakkala allahu bihi malaikatan yaxfadunahu wa yadcuuna lahu xata yaqdiya ne soo demee leb leb marchandise baa nga leb tisi baa nga leb dund baa nga leb xaalis te ba ngay leb am nga yéene wu fay nee na yàlla dana la booleeg malaaka mu lay wattu di la ñaanal yal na la yàlla may loo ko fayee ba balaa ngay fay bor boobu kon xam nga ni kon leb dagan na leble dagan na bu ci nekk daa si am tuyaaba mais soo amee yéene nag si ngay am malaaka bu lay ñaanal ku am yéene fay ala kulli xal lu mu yàgg-yàgg daa fay mais ku am yéene door marto ala kulli xal lu mu yàgg-yàgg doo ko bës fay te su boobaa salaa sallam neen wa illam yanwi qadaan aw nawaahu walakin lam yafi xiina istataahu fa innahu qad gasha wa man gashana fa laysa minna ki nga xam ni nag ba ngay lebi xam nga xëllin doo ko fay daa ko bab wax ko wax ju bare ak làmmiñ wu neex jooy ko mbaa nga wirdu ko ba mu jox la ko xam ne doo fay yéenewuloo fay nee na wala nga am ka te fas yéenewuloo ko jox xaalis boobule nee na warkat nga sàcc nga te kuy war bokkuloo ci ñun kon nag warkat boobule nit war naka daw mooy traître ba ngay dem di jëri alalu jàmbur jooju xam nga ni amuloo moyen yi xam nga ni fas yéenewuloo ko fay alalam jooju kon sàcc nga tudd danga demoon daan ko rek loolu jar na bàyyi xel yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam laa yaxillu maalu imri'in muslim illa bi tibi nafsihi daganul jël alalu nit lu dul tey bakkat kon soo demee jël alalu jàmbur leb ko ko te fas yéenewuloo ko fay yàkki jaar suuf comptoir bi sàcc ko yéen a yem képp kon alalu nit soo ko jëlee te lewu la tabaarakallaahu yaa ngi dunde loo xam ne daf lay lakk daf lay gaañ di gaañ sa njaboot nee na man ixtataa maala imrii muslimin bi gayri xaqin laqiya allahu wa alayhi gadbaan yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni jël nga alalu nit ci lu dul dëgg te mooy leb ka marchandise am xaalisam tabaarakallahu lu mu am te fas yéene wuloo ko fay ne bis penc ma daa dajeeg yàlla mu mere la ku ci am bor bu ci am kersa lu bor ba yàgg yàgg yàgg demal seet ka nga ko digaaleeloon ngeen waxtaan waxante lu rafet signéwaat ay contrat weer wu jot soo amulee ñëwul ni que ah man kat yéene woon naa fay le 5 wante kat jamono boobu nag mayaat ma ba le 15 ba le 20 di nga def noonu moo gën nga ni meng am na ku soo ko lebee tey jii du ñëwaat mukk loolu mooy indi nit ki mer nit ki frustré am xel ñaar nit kii daf ma doon nax si foog mu ñëw ak si la ak bu ñaaw. ومن الإحسان فيه مهما كلمه صاحب الحق بكلام خشن فليحتمله وليقابله باللطف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بوكنا شرفتل يو دغا ورون دغا دغا لب فايغلو دلي بي باسنا باسنا باسنا بروم بور بي نيو نيو خدرم نيو تانغورم نانغول كات mais soo xëy nga wax adduna tukki yaa amee alalam téye ko i weer wala i at wala i semaine délai ba weesu na moom soxla na ko ñoo ngi ko boñe feneen mu ñëw di ko jël si di wax ngay wax yow da nga war noppi rek daal di yaru wante roye ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa sallam daf yàlla moo ko indi pour mu jàngale nekk sunu modèle toll na si diggante dem leb ba leb yahud xam nga falam nattu mën a yem mais yàllaay jàngale ni yow julit mën nga leb ku dul julit ngeen seq bor salaa salaam tollu ne diggante leb yahud waxtu wa jot yàlla natt ko amul lu mu fayee yahud bi ñëw ci biir saxaaba yi ak ñàkk teggin gaa ñi bëgg jóg mu leen ee bàyyi leen kam wax borom bor noonu la boroon waxe borom bor su yow di fayee ko si du sedd du sedd mu ni salaa salaam ne leen bàyyi leen kam mu wax man ma dal ba yàlla jox ma lu mu ko fay kon doomu aadama yi aussi war nañu yar seen bopp tabaarakallahu ku ci digaalee ak nit waxtu wu ñëwee di jël si borom yow nga ànd ak lut fi nga ànd ak dal nga ànd ak sérénité nga seral balaa wax ji di gën a indi ëpp indi fitna bokk na ci ay ngëneelu tabarakallahu leb ak leble yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam man andara mu'siran aw taraka lahu xaasabahu llah xisaaban yasiran nee na képp koo xam ni dangaa ñëw di leb si ci boutique bi ci magasin bi jaaykat bi xam ni tabaarakalla toolu nga diggante mu suturaal la lebal la wala nga ñëw di jënd si la nga indi sa dépense matul fa nga jóge sore na bala ngay wàññeekuwaat dellu siwaat xale yi daan wàcc daañu fande mu ne la indi li nga am am yóbbul ceeb bi am yóbbul dëwlin ji soo féexaatee soo ñëwee nee na kooku incha allahu xisaabam dana sedd guy xisaab bu sedd lay am incha allahu taala xam nga loolu jar na ko kon jaaykat yi tamit war nañu doon ñu ànd ak yërmande su xale bi ñëwee indi dépense bi jox ma ceeb jox ma suukar jox ma dëwlin li nga ko jox xam nga ni matul ko bala muy àggaat këram bi indi weccit wi dana ngoone lool nga ni ko demal ëllëg sooy ñëw nga indi li si des ma mottali la yàlla dana xisaab xisaab bu sedd am na sa benn riwaaye mu ni daa dekki ca keppaaru arsh ba bés ba amulee benn ker ku dul keru arsh yow jaaykat boobu le mu ni moom sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nettali rajulan kaana musrifan ala nafsihi xuusiba waa joo xamante ni fa sàggan jeexe fal tàmbalee di dem xëy suba génn àdduna bu mu génnee àdduna ñu di ko xisaab gisuñu ko benn dossier bu baax ñu ko yow foo nekkoon lan nga xam ci lu baax lu mas def mu ni man daal jaaykat laa woon dannaaw xale bi may jaayal ni ko képp ku fi ñëw di leb su ma fekkulee na nga ko jox la mu bëgg képp ku ñëw di jënd si di waxaale na nga ko jox sa njëg ba gën a yóbbu ne yàlla ni ko bal nañ la ndem yow yaa mën am yërmande sama jaam yi masa ñun yàlla ci yow kon yow bal nañ la kon jaaykat boobu tabarakallahu jaaykatu marchandise bi jaaykatu légume bi jaaykatu jën bi jaaykatu yàpp wi commerçant bu mu doon fa tabarakallahu soo bàyyee xel loolu xam ne yàllaa ngi di tiim te moo la gën baax sa digganteem ak jàmmam yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam man aqrada dinaaran ila ajalihi falahu bi kulli yawmin mithluhu sadaqa ila ajalihi nee na képp koo xam ni leb lebal nga nit dërëm téeméeri dërëm mille francs junne million ba bala mu la kay fay bés bu yàlla sàkk ñu bindal tuyaabu ku génne loolu ci sarax su dee dërëm nga sarax bis bu yàlla sàkk ñu génne la saraxu dërëm bis bu yàlla sàkk génne la saraxu million ba la nga génne yépp insha allahu taala bis bu nekk ba bara ñu la koy fay am nga yoolu génne sarax loolu waaw mu ni raaytu ala baabal jan baabil jannati maktuban alsadaqatu bi ashri amthaliha walqardu bi thamani ashratin nee na gis na ña nga bind ca buntu ajjana ni saraxe de ku génne benn sarax dañ la joxaat fukk faye la ko ku leble ñu fay la fukk ak juróom-ñett mu ni lii la lu ko waral ñu ni sarax dana tombe ci loxo ku ko soxla ak ku ko soxlawul dangaa génne sarax rek am yàlla jox la am yàlla jox la ku nangu rek jël na wante leb ku sonn rek mooy lebi ku jaaxle ku wéet ku tumranke poñe boppam poñe ngorom dox guddi ngir fëgg nawleem baa nga dugg ci magasin bi sa nawle yëpp di jënd waaj na la yow looy xaar looy jënd gën ko xaaral ñi pare leb kuy leb noonu lay mel xaaral ñi pare jaayal kii rek jaayal kii man yàkkamtiwuma jaayal kii boutique bi di fees dell nga di jaay ba tàkkusaan nga ni ko man day lu bu yóbbu kër ga laa bëgg tabaarakallahu nee na moo tax àjjana bind nañ fa ni ku leble daa am fukki yool ak juróom-ñett yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na bés janoo ak ñaari gaay ñoo ngi wax ñoo ngi wax wax ji bare lool ñoo ngi poñente jàppal bàyyi mu ñëw seen diggante ni ko lu xew kii daf ma ameel sama xaalis daf ma ko war a fay fayaguma sallallahu alayhi wa sallam atte seen diggante ñaata la mu ni ko nangam mun ko wàññil ko ko bokk la nga waroon fay 100 pour cent yi joxal 50 yi léegi beneen weer yeneen cinquante ñu ko nangu nga waa ji ne ko nangu naa ko mu ko jógal dem fekk xaalisam te dem kon tamit loolu ci la bokk léeg-léeg nga am leen nit bor mu bare lool ngeen waxante délai délai ba jot amuloo la nga waroon fay mais am nga genn wàll ga am nga kaar ba am nga wiccéem ba amul loo dugal mais dugaloo dara imaginez vous ku amee boutique am maa jine marchandise am bitim réew dafa leb xaalis pour jaay ñëpp ñëw leb ko ceeb ñëpp ñëw leb ko dëwriñ kenn boutique bay marché kon dafay daanu di ngay ni sa ay tissu ñu jël tissu yëpp kañ ngay amaat xaalis pour dem jëliwaat tissu kon nag ñee leb nañu di boole fay at te bor daal fay te bor kenn ko yóbbu alaxira yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam rahima allahu imra'an sahla al bay'i sahla al shira sahla al qada sëhla al iqtida nee na yan na yàlla yërëm koo xamante ni dafa ànd ak yërmande ca njaay ma am yërmande ca waxaale ba am yërmande ca jënd ba am yërmande ca leb ba ak fay bor ba yërmande ci jaay mooy nga teg njëg loo xamante ni ñëpp attan nañ ko mais soo indee sa produit jël njëg bi multiplié ko par 10 kenn attanu ko kooku yërmande ca la bokk yow miy jënd di waxaale kii jox la 1000 francs nga ni ko def ko 100 francs yaa ngi koy tooñ waxaale aussi day ànd ak yërmande lépp day ànd ak sutura fayeeku bor day ànd ak sutura kon doomu aadama yi nañ ci boole ànd ak sutura ci mboole seen jëflante doomu aadama yi nañ ko wax ci njekk ak teraanga ak sutura ak mbaax yàlla nee na irham man fil ardi yarhaku man fi samaayi yéen waa adduna yërëmante leen ngir waa asamaan yërëm leen yal nañu yàlla xiir ci boppam dëpp la ñoo alquran allahuma jacal jamcana hada jamcan marxuman wa tafarruqana min bacdihi tafarruqan macsuman wala tajcal fiina wala macana shaqiyan wala matrudan wala maxruman birahmatika ya arxama arraximin
ñoo ngi leen di yeesalaat julli naafila bi nga xam ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni guddi laylatul qadri julli na ci ñaari raka raka bu ci nekk gannaaw alfaatixa nga jàng qul huwa allahu ahadun juróom ñaari yoon boo sëlmalee wax astaghfirullah wa atuubu ilayhi juróom ñaar fukki yoon yàlla maa ngi laa jéggalu maa ngi laa tuubal julli la goo xam ni képp ku ko julli fa nga toog yàlla subhaanahu wa taala dina la jéggal sa bàkkaar jéggal sa ñaari wayjur yebal malaaka sa aljanna mu tabaxal la fa kër bu ràññeeku malaaka di la rooseel garab yi te doo génn àdduna te teguloo sa bët ci boobu lay ngëneel yàlla bu mu ump jullit moo waral saxaaba yu tedd yeeg ulamaa saalixuuna yi di ko naafilaa ci guddi weeru koor gi yépp di ci yéene màggal laylatul qadri ñoo ngi leen koy dénkuwaat ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangu ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu